donc mbok Tëngéej jarul may continuer ndax Tëngéej mom combat amu fii mosu fi am nous avons toujours gagné Rufisque en réalité dafa neex rek ñu ñëw fi di di yëngal mais combat mënul am Tëngéej parce que tous les fils de Rufisque sont là tous les fils de Rufisque sont là ni moo tax